dëgg yàlla euh, blessure bi bi mu amee Sénégal gépp mhm. vraiment tiit nañ parce que boo xoolee sax dafa mel ne benn arrêt euh, sur image nga xam ne Sénégal yëpp partage partagé image bi ni mu toogee ci pelouse bi euh, muy loo xam ne tiit parce que qu'on le veuille mooy sunu star moom Sadio Mané mooy sunu vedette mhm. mooy joueur bi nga xam ni parce que boo demee ba jël deuxième au niveau du Ballon d'Or xam nga kooku caaxaan wax dëgg yàlla ci àdduna bi yëpp ñu ni ci ñi gën a xarañ ci at mii nu génn yow yaay ñaareelu jour bi bañ na doon wax sax ni euh, ay ñàkk chance ak Liverpool mu jëlul Ligue des champions moo la ko xañ waaye bu doon loolu bu Ligue des champions bi nekkoon ci loxo Liverpool rek mënoon na nekk euh, vraiment le deuxième africain boo xam si nañ ko jox ballon d'or bi donc euh, moom bu ñu nekkoon blessé na wala blessé wul rek déjà nit ñëpp tiit nañ mm-hmm. man nag damay wax ni bu ma doon Aliou Cissé ak lu man am man dama koy boole ci jour yi may tànn gannaaw suba. parce que ak gannaaw suba la war a fésal. Euh, euh, liste jour yi nga xam si ñoom ñoo war a dem euh, ca Qatar. bu boo bu Sénégal. dama koy bind ci équipe bi. ñu nga xam ñoom ñoo war a dem Qatar parce que l'équipe c'est vrai que c'est un journal crédible li muy wax lu ci ëpp. Euh, ni mu ko waxee lay demee. Mm-hmm. waaye nag démb man première euh, impression yi nga xam si moom la bayar na joxe woon mm-hmm. mooy mën na ñàkk peut-être benn match euh, mais Sadio du indisponible pendant toute la compétition. Mm-hmm. bon man boobu ba léegi moom laa gën a gëm. tubaab yi nag bu ñu fàtte ni naam. crédibilité am na loolu démb la woon mais dafa information dafa évoluer waaw dafa évoluer c'est vrai loolu loolu la l'équipe wax. mais euh, man dama gëm daal mooy que ni bu mel noonu daal. Mhm. même boo koy bàyyi muy toog ca banc ba. Ah euh, ci mondial da nga koy yóbbaale man daal lool laa ci dolli bu ñu sañoon nag vraiment yàlla jàpp lañu ba mu bokk ci. Euh, jour yi nga xam si nekk nañ ci form parce que même bu fekkente ni blessure demul noonu te forme am wàññeeku tam amul njëriñ. Mm, mais mais mais nag vraiment tiitaanga daal am. mais am ñu jàpp ne xëy na pexe tubaab yi la. Mm-hmm. ngir gàllankoor équipe yu. waaw parce que xam nga loolu dafa yàgg am ci mondial mondial du caaxaan. parce que mm-hmm. mondial ñoom xam nañ ne équipe bu mel ne Sénégal xëy na pareegul pour jël coupe du monde. Mm-hmm. nañu waxante dëkk rek. waaye mën naa mais mën naa sori. maanaam bu ñu nee mën naa sori mooy mën naa yàqal équipe yu mag. <laughs> loolay jafe-jafe bi quoi c'est-à-dire <laughs> maanaam même bu ko mënta jël. maanaam maanaam mën naa dem ba yàqale équipe yu mag yoo xam ne ay favorite la euh, équipe favorite lañ. donc mm-hmm. looloo tax bu ñu sañoon ñoom tubaab yi. Mm-hmm. équipe bu mel ni Sénégal nekk la première équipe africaine su le classement FIFA. bu ñu sañoon ñoom du de du yóbbu jour vedette tam parce que wax dëgg yàlla ñoom ñëpp tiit nañ Sénégal boo dégloo. vraiment star yu mag ci football ñu ngi wax ni. ah. Euh, ku ci mel ni Haaland effectivement dem ba naan sax day supporter Sénégal xam nga loolu lu sérieux la parce que xam na ne Sénégal c'est une équipe redoutable tout à fait waaw c'est-à-dire que maintenant nag Afrique pour plusieurs raisons ci ni ñu leen di waajalee ak jafe-jafe yi xëy na nit ñaa ngi naan bu ñuy jël coupe du monde dana desaat tuuti mais euh, comme dem nañ fi ay quart de finale mm-hmm. euh, coupe du monde kon kooku du caaxaan kon ça veut dire que Sénégal moom mën nañ koo sóoraale. ci coupe wax dëgg yàlla ci coupe du monde bi su fekkente ni yóbbaale na jouram yépp parce que ñun. bien que bien am nañu ay joueurs yoo xam ne fu mu toll amuñu benn compétition. waaw ku ci mel ni Saliou Ciss xam nga man. Euh, man ce ko war a boole man pas compris bu toogee sax 6 mois yoo xam waaw man ce que j'ai pas compris mooy Saliou Ciss ak mm-hmm. euh, Coupe d'Afrique bi mu def mm-hmm. nan lañ mën a toogee ñu ne benn équipe xëccoowu ko c'est-à-dire surtout les équipes de mm-hmm. bas de tableau en Angleterre man jàpp naa ni. Euh, équipe yooyu waroon na ñoo mën a xëccoo Saliou Ciss parce que man maa ngi leen di seetaan. Mhm. ñu leen di bàcc bàcc yu metti parce que souvent mhm. avec le football moderne léegi soo amee flanc yoo xam ni. Euh, vraiment yow amoo latéraux yu taxaw. Mhm. mais gars yi fa lañ lay jaaree rey rey la ba nga dee maintenant su nekkee équipe bu ndaw. léegi nga xam mm-hmm. am ay ay ay ailier yu taqe. Mm-hmm. yoo xam ñoom ñëpp boo xoolee recrutement yi loolu lañ def à part euh, quelques équipes comme City nga xam dafa miser sur Allende. Mm-hmm. mais ñoom ñëpp dañu miser sur les flancs wut ay ailier yu gaaw yu xam am nga am latéral aussi brillant. nga xam ne moom c'est latéral offensif. nga xam ne da jàppale ci défendre maintenant di la jàppale également ci attaquer parce que les phases offensives. offensive. Mhm. moom da ciy bokk te ci bokk ci niveau bu élevé comme ni ko Arsène Wenger di waxee. Mhm. mais nee moom gëj na gis niveau parce que Arsène Wenger su leen moom bi muy yore Arsenal moom latéraux yu aay la daan miser. Mhm. mooy des latéraux offensifs. ci ñoom la daan miser pour. entamer les phases offensives moo tax moom. Mhm. mondial bi yëpp euh, coupe d' bi yëpp euh, ki ko ci charmé c' est Saliou Ciss parce que Saliou Ciss. <laughs> non seulement day taxaw si défendre <laughs> mais day sentir les phases offensives bay créer une supériorité ah, numérique. en mais mais mais mais Seydina ku ku ku dégg sa ku dégg sa xam ne nawetaan nawetaan wala <laughs> wala non waaw waaw mais j' étais j' mais aussi nee naa. j' étais arbitre sànq maa ngi doon wax mhm. bu fekkente ne gars yi aussi mënuñu ko indil. waaw parce que su ko defee am nañ suñuy tolikuna. waaw am euh, waaw waaw euh, suñuy karité yoo xam mën nañ koy boole. ak xorom Sadio waaw. Euh, ñàkkul ne bu ñu ko defee ci oom bi rek mën na jug tax. non non loolu lépp mën na parce que réalité a. mais xam nga saa dafa sànni benn affaire xam nga man. <laughs> ah football man effectivement man. Mm-hmm. man bi may nekk géewul d' abord ñu bëri li ñu xamul si man mooy man arbitre laa woon. Mm-hmm. man j' étais arbitre de football dem naa ba district Euh, ñàkk temps sax ak ni may def nii laa doon def université ba aw ma temps parce que université ñoon doon fayal ñu ñuy formé. Mm-hmm. Euh, samay xarit am na ci ñoo xam dem nañ ba nekk léegi ay fédéraux. ñu ma doon defandool formation mais maa fa nekkoon di grève ak. université Gaston Berger di jiitey grève ak commission sociale dugg di régler problème étudiants yi loolu moo ma doon tardeel ba ma doon raté ay cours ba mujj mënatuma dem mais finalu université yu bëri dama ko doon arbitré eh, finalu jaajëf eh, man football dafa ma intéressé loolu beneen visage voilà donc dafa ma intéressé man daaw ma nag dem defi football sport comme gars dañ ma daan wax ma yow da mm-hmm. mais vraiment euh, arbitre moom def naa ko nawetaan géewul <laughs> def naa ko à à Gaston Berger et puis le football m'intéresse donc euh, mais mais mais su ko defee mun nga siffler ñu dugg deuxième mi-temps. <laughs> ok euh, deuxième mi-temps deuxième mi-temps en tant que arbitre euh, tey jii information bi yaakaar naa ne moom la ñu waxtaanee tey.